maa ngi leen di nuyu di leen ziar di sant Sénégal yëpp di sant ñi fi teew di jéggalu ci ne ci biti di jéggalu tamit ci suñu mbokk taskati xibaar yi ndax waxtu bi ñu waxante woon nañ dafa war a tàmbali te bu ñuy woote ay jikko yu bees loolu ci war a bokk ñu jéggalu ñu daje woon fi tey ci turu benn coalition pour tudd coalition pour le Sénégal bu wóor Sénégal bu mu bëgg tabax Sénégal bu bees donc yaakaar ni li solo mooy ci njiitu mooy waxtaanee suñu réew ndax suñu réew ah fi ñu ci bëri na te mënoon nañ jubóo ànd xàccandoo dóorandoo te loolu weesuwul yaakaar ne ci jamono bi ñuy toll fii ak joŋante yi di ñëw waral nañ ñu waxtaane suñu réew ñu jubóo def doomu Sénégal yi taxte xol ni ko maam bi doon waxee ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu doo xam ñaar nekk ci jamono bi nga xam ne am solo ñu waxtaanee ko tamit ci wàllu jàmm ji nga xam ne ñu ko am ci biir Casamance te ñu yaakaar ne jéego yi nga xam ne def nañ ko ci bureau Macky Sall def ko ñu continuer ndax Sénégal bu bees bu ñu bëgg a tabax waaye yokk doole li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange suñu réew ci biir ak ci biti ñooñu tamit lépp lu ñu war suñu diggante ak ñoom ngir sàmm suñu réew ñu continuer di leen dooleel di leen déglu di leen gunge ndax jàmm rek a xaj ci Sénégal di nuyu suñu mbokku. Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bitim réew nga xam ne dañoo jaaxle ndax li ñuy dégg ci seen réew ci lu bëri mën na nekk njaxare ci ñoom di yaakaar ne ñoom ku leen nga xam ne li ñu soxla yàlla xam na ni bëriwul dañoo taxaw leen ci bépp bi nga xam ne ab soldaaru Sénégal génn na réew mi di dem xeexal Sénégal di ñeefeel Sénégal mu war nag réew que bu ëllëgee bépp doomu Sénégal fu mu nekk ci adduna bi bu soxlaa ak kayitam lu jar muy sonn ndax adduna bi internet xarala yu bees yi tax na ba loolu war na nekk lu yomb ñu war taxaw wala leen gunge ndax doomu Sénégal mënul tumurànke ci bitim réew wala ci ay mbéj te ñun ay doomu jàmbur ñu jóge ci réew ku fi suturaalul suñuy doom war nañoo bañ suturaal sa doom fii. ndax dëgg moo nit day sotal mbokkam il est temps que ñu ay doom yi nga xam ne ñu ngi bitim réew di xam ni tamit seen i mbir ak seen yéen mooy ku ci daan dooleel gannaaw li muy dimbali ay waajuram di leen suturaal ak seen i mbokk li mu mooy am ci fuy dëkk te loolu yomb na ndax dëkk ñu Dakar rek Sénégal yëpp lañ war mooy ñu de façon très claire et transparente pour que fépp fu ñu nekk ci na bu ñu soxlaa ñoom lu mel noonu réew mi taxaw leen war leen taxaw yi ci li nga xam ne am na solo trop trop trop trop mooy ñoom it léeg-léeg ñu am ay possibilités ñëwaat ci suñu réew pour indi fi ay investissement te loolu ci benn budget unique bu simple mënoon nañ leen a gunge pour que bépp opportunité bu ñu am ñu indi ko suñu biir réew mu njëriñ leen mu njëriñ suñu réew ma yaakaar ni tamit Sénégal gii nga xam ne suñu mbokk béykat suñu mbokk sàmmkat suñu mbokk nappkat ñoo gën a bëri laaj na ñu gëstuwaat li ñuy doxalee suñu diggante ak ñoom ndax dañ doon amee bor leen amee bor bu rëy bor bi nag mooy bu ñu seetloo ci Sénégal indépendant ba léegi du app bu jot fekk amul bi jëm ci ñoom sans pour autant que loolu indi yokkute ci seen biir ñu war a waxtaanee loolu fii damay tënk rek pour ñu déggoo ndax li ci war bu soobee yàlla dinañ ko taataan ci yeneen anam waaye daal war na pour que suñu bokk nappkat mu dundee métier bokk baykat bi mu dundee métier suñu bokk sàmmkat bi mu dundee métier te noonu it suñu nekk yi nga xam ne ñu ngi ci artisanat ñooñu ñoo nga xam ne ñoom ñooy première matière première noonu laa koy woowee pour politique industrielle ñu mun leen a gunge pour que ñoom ñu migrer bi secteur de l' artisanat à un artisanat plus fort wala du secteur de l' artisanat au premier jalon d'une politique industrielle. ma nañoo gëstuwaat ñuy jàngalee suñu réew ndax ba léegi suñu bëri xamuñu ñun ñooy ñan xamuñu lan mooy Sénégal ndax xamuñu kuy seen maam xamuñu kuy seen pap te ndax jàngale wuñ ko suñu daara ñu war a xam suñu bopp ñu war a xam kuy sëñ Tuubaa ñu war a xam kuy maam Maodo ñu war a xam kuy maam Bou Kounta ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nekk nañ ay valeur ak ay référence nekk ci diine yi nekk ci tarixa yi nekk ci fu ne ci Sénégal ci wàllu politique ci wàllu syndicat ci lu nekk waaye buñ ko jëlee ñu xool naka ñuy développé ay mécanisme yu tax ba ndaw bu nga xam ne wóor nañu ni kii mënul continuer ci jàngum école ñu mën mu utal pexe bu jàng métier suñu jàng bi nga xam ne mooy ci daara yi ñu bàyyi mu bañ a nekk benn perspective kese maanaam képp ku nekk ci daara di bi daara ci Sénégal lenn rek nga yaakaar ci sa àdduna mooy nekk sëriñ daara te alors que mu doon leen buggee ñoom pour que nag bu ëllëgee ñu jàngal xale yi naam waaye ñu jox ay matuwaay pour que ku nekk jàng benn bu nga xam ne bu ëllëgee mun na ko exercer bu soobee mu bëggoon ñu waxtaanee loolu yëpp ci suñu réew waxtaanee suñu suñu jëm ëllëg ndax am na solo waaye loolu yëpp bu soobee yàlla dinañ ci waxtaan ma wax rek mooy man du ma fëgg jëf du ma fëgg jëf maam boobu sekkal maam boobu sekkal muy président Macky Sall muy bu waxtaan bu ñu suma man ndax teg na ma wetam wóolu na ma gunge na ma jàngal ma te li mu jëriñ réew mi ñëpp xam nañu ko waaye li ma ko waxee rek doom moom bu jotee doom bu yaakaar rek war a mën doon nag boo xoolee sax suñu diine ñëppay doon waaw mais dafa ñëpp mën doon nag na ku nekk sax bu dëgg rek ku moom moom moom li mu liggéey ci suñu réew mi ak jàngat bi nga xam ne ab ndam pour bépp doomu Sénégal ci adduna bu mu taxawee ni mënoon na samp ci dëddam la bëgg a sàmm waaye it bëgg na jàmm wéy ci réew mu ne day dellu ginnaaw bëggatul nekk candidat contrairement à li ñu sàmmoon ñun li ñu sàkkoon ñun loolu dugal Sénégal histoire te nag suñu démocratie war nañ ko de suñu démocratie moo ñu may Senghor Senghor ñëw ba xam ni ah réew mi na ko dépassé bàyyi ma ci kàddu mu dénk Abdou Diouf ndax moom Senghor bu mu nekk président jamono yooyu bu ngeen ko seetloo Afrique kuréel yi dañoo bëri woon réew yu bëri ay jiite ko ñun nag yàlla sàmm nu ndax amoon nañ démocratie bu tàmbali woon ci ba Abdou xam dafa war a wéy liggéey mu liggéey nag lu am solo te benn administration ba am doole ñu ubbi démocratie démocratie boobu moo indi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade falu gëm loo ni lépp lu am ci àdduna war nañ ko mën a am fii ci suñu réew mu décomplexe bi bu paree Macky Sall nga xam ne c'est vrai lépp lu ñu war a sécurité àdduna war nañ ko mën am fii waaye nag bu ñu fàtte Sénégal bi ci biir le Sénégal de l'intérieur bu ñu fàtte Sénégal bi néew doole le Sénégal social kooku nag moo ne moom mission ci boppu Sénégal dina jeex bu soobee yàlla ci joŋante ñi ñu moo waral ab coalition jóg mu nekk ay parti ay mouvement ay kilifa ay kuréel yu bëri ñu taxaw laaj ndax ma nekk seen bër. bu soobee yàlla. bu soobee yàlla benn président la ñuy fal ci joŋante yi ñu dem waaye waaye période bi ñu toll nii dafa jàng ñu waxtaanee suñu réew kon nag képp ku bëgg samp dëndëm ñoom samp dëndal wax nag lan mooy yéeneen ci suñu réew bu boobaa sénégalais ndax ñoom rek ñoo war a mën atte maa baax di leen